Hmm, waa mbokk internet Iba Kane TV tey dem leen andil le président des amateurs ah, saison baa ngi tëj te lu si des bëriwul war na tirer bilan bi wax ñun nan la dundee saison bi ndax saison bu neex la wala saison bu naqari lan moo ko si naqari mais li ñu gën a andi tey mooy dañaa dégg dañ ko tuddee drapeau le 23 juillet samedi bii di ñëw bu si topp le 23 juillet fële ci arène nationale Habib Lecran tuddee ko au euh, drapeau muy dox si diggante saaba ak Ardo fële ci arène nationale ah, du jànjee ko ziar naa la. maa ngi lay fay tonton Ibba. Mhm. yow sama nijaay nga. Mhm. maa ngi lay fay di nuyu. Mhm. di nuyu Ibba TV. Ibba Kane TV ak internet. Ah. boo xam ne yaa ngi ci làmb ci si sport bi. yow nag vraiment boo amee benn site boo xam ne. Ibba Kane TV la tudd. wàcc nga dañuy ñaan ñëpp di ko suivre. parce que ay information lamb am solo nga siy joxe. ñoo ak dégg information dañu laa tuddee drapeau le samedi 23 juillet fële si arène nationale Habib euh, l'écran tuddee la ko loolu nan nga ko dundee. waaw sant yàlla rek. di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Habib l'écran miinante dafa def sponsor bi ñëw moom bu diggee l'écran moom. dañ koy jënd souvent. dëgg la. waaye nak kita mungkin ma koy jënd mooy lu ñuy jàppale lam. jàppale lam hmm. dëgg la dëgg yàlla mii lañ tëm. xawma woon numéro xëy na moom it xamu sama numéro. yàlla def mu woom mu ne man di dama am bés yow laa ko wax de grand combat bi. ma ne ko amul benn problème. bés bi nag du sama bés muy Alioune Diaw Alioune Diaw mel dëkk Géejawaay mm-hmm. nit baax ku am jom mm-hmm. am fit am fulla am fay bëgg Géejawaay lool bëgg mm-hmm. amateuru làmb lool bëgg képp kuy amateuru làmb Diaw bëgg na la ak foo munti far waaye nag moom Géejawaay la faral moom am na si droit muy amateur bu baax xat ñoom euh, Tafaanaar ñoom Maalaw te xaritu ñëpp képp koo xam ne nii tey jaw xam nga ko rek. waaw bés la bésu Moussa Thiam la. Mhm. bésu Baye Fall la su Cheikh Sarr la. bésu Amadou Mbaye la. bésu mhm. ñëpp képp koo xam ne su Diène Diouf la bésu euh, Saliou Seck. nga mhm. jàmm suñu papa yooyu la. bésu suñu Baye Moussa Thiam la. bésu Mouride Gueye la. bésu Mame Goor Fall la. papa Lambaye. bésu suñu papa Mbaye Thiam la. ak Mamadou Sarr. Mamadou Sarr. Mhm. ak El Hadj Mbaye Ndoye Wakaam. Mhm. nga xam ne ñoo ñu dénk li yor. Mhm. ñoo fi des yàlla guddal seen fan. wéral leen. bésu amateur yi la bésu promoteur yëpp la. dëgg muy Pape Abdou Fall muy Thiel production muy ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi si làmb. ki nga xam ne tamit yàgg na ma tuddee làmb. muy Fallou Ndiaye. waaw koy nuyu di ko gërëm di ko sant moom yàgg na ma tuddee làmb. di nuyu ñoom Fallou ñoom daal. képp hmm. kuy promoteur nuyu naa la. Hmm. di la ménager. nuyu naa la di Babou di Mbaye Diagne Sëwru Fall mi nga xam ne suñu lépp la. Hmm. ñoom daal bés bi seen bés. ah jour nag ngay demee da def délégation bu mag ànd ak gars yi fii la ñuy déparé sa kër. xam nga bés boobu day ngi si ay élection ñëpp xam nañ ne campagne électorale ñu ngi si ay campagne électorale mhm. donc li si nekk rek mooy comme li ma wax mhm. bés bi lépp dañ ko teg ci loxo jaw jaw mooy yor ñëpp dañuy topp si gànnaaw mhm. euh, moom mooy wax rek lu mu ko neex ñu def lu mu mel rek moom la waaye bés bi lépp waaw teg nañ ko si loxo jaw jaw mi nga xam ne tey jaw mooy làmb jaw mooy amateur yi jaw mooy lépp waaw ñu tuddee la bés loolu lu muy def si yow en tant que parfois du bidub sa pas la première fois ñu tuddee la drapeau yàgg nañ la tuddee ñu tuddee la bu ñu tuddee drapeau lu muy def si yow. xanaa sant yàlla rek xam nga tey. Mhm. ñëpp bëgg a siiw. Mhm. am na sax ñuy dem si ay promotion naan leen tuddee leen ma boo toogee bu nit am cofeelam mhm. moo gën nga tuddee leen ma kon kooku sant yàlla. moom bu demee ba gis ma. xëy na yàlla xolam yàlla dugal ko si man. Hmm. ba mu ne ma kii de vraiment nitu làmb la. gis hmm. nañ taxawaayam si làmb. dama hmm. koy tuddee làmb. Oh. man mënuma si dara mënuma sant ko gërëm. man dew ma si moom ne ko tuddee ma. dew ma si keneen ne ko tuddee ma. ñoom ñoo xool war ne war na maa tuddi. ma tuddee ma. kon nag bés boobu lu ma lu may kontaan la. parce que kay kay. fal leen ma ak kaay ñu fal du mm, benn du benn yow laay def lii mm-hmm. ak kaa yi def ma nii du benn du benn sant mm. tuddee nit drapeau diis na comme yow ñu tuddee la nii drapeau diis na waaw diis na diisu parce que bés moom mm. kenn ko xeebal nit tey kuy sa xarit wala sa dëkkandoo yëg ne tuddee nañ la làmb nga woo ko wala nga ñàkk ko woo bu amee jot wax na mën a ñoo ànd ak yow bu amul jot ñu xam ne amul jot waaye bés moom lu tuuti du tuuti Mm-hmm. bés bu tuutiwul mm-hmm. it bés bu rëy la mm-hmm. te eh, li si war yëpp nañ ko si def mais yéen parrain yi da ngeen di nekk parrain wala da ngeen di nekk sponsor non man nag du ma nekk sponsor parrain rek laa parce que yoruma société bu ma sponsorisé yoruma meew yoruma bu may wane yu yoruma société boo xam ne war naa taxaw wane waaw dëgg yàlla nañ ma parrain laa rek incha allah si boobu laay ànd ak sama xarit Jaw Alioune Diaw hmm. ñu ànd hmm. ñu ñëpp hmm. dem làmb ja teg ko bisimilah rahmaan rahim jóge fa alhamdulilah lan ngay wax ñaari mbër yi ah, Saba ak Ardos wàllu wàllu sportivité fair play rek ñu am fair play xam ne làmb facteur développement seen supporters buñ ñëw pour yàq làmb nañ ñëw pour defar làmb ñaari mbër yi làmb la ñuy amee dara dañuy liggéey man nag li ma nangu mooy supporter bu mu gis ngay hmm. yàq dara dañ laa war a jàpp yóbbu la si yoon. Hmm. mais waruñu ne mbër mi. Hmm. yow yaa andi supporter yi. dañuy dagg sa cinq cent mille wala sa six cent bi loolu yanul maanaam CNG loolu na ko bàyyi. yow ñëpp gis nañ ñi yàq nañ jàpp ñiy yàq yóbbu leen si yoon. pour lan yow mbër mi ànd ak mbooloo. mbooloo moom di yàq nga ne mbër mi moo def li am na ñoo xam ne mbër mi xamu leen. te mbooloo foo dëkk boo dem man de gisuma bër gi dem ba ñaar ñëpp gis nañu. même tey France ñu ngi si enquête bi. Hmm. Real Real ak Liverpool. final Ligue des champions bi. final Ligue léegi ñu ngi si jàpp ay ay supporters. te jàpp ñu équipe bi. est jàpp nañu équipe bi. foo dem. Hmm. noonu lañuy dem hmm. donc dafa am loo xam ne euh, euh, euh, rafetul. waaw rafetul. il faut ñu xam ne mbër yi aussi. duñu ay jaam. mbër yi dañuy liggéey ñoom tamit mais nag ku si ànd ak nit koo xam ne. gis nañ ne yow yaa ngi yëg yàq siège te ñu gis la mhm. yow lañu war a jàpp yóbbu la si yoon mais waruñu jàpp waruñu jël xaalisu mbër bu ñu gisul ki ñu ko def nag ah bu ñu gisul ko def ñoo xam ne ñoom ñoo ko parce que tey mhm. CNG war nañ jël ay nit yu teg supporter bu nekk mhm. ñu teg fa nit koo xam ne day xool bu xoolee ne kii moo yàq mu woo policier yi ñu jàpp ko yóbbu loolu mooy yoon mais du yoon tey mbër mi ñëw ay supporter parce am na ñoo xam ne dañ si ànd rek et puis léegi jamonoy politique lañ ne lu leen xamal ne opposition bi wala benn nit. Mm-hmm. dugal na fa ay xale neen dem lay yàq stade bi lan moo si lan moo xam dara. wala si dara voilà. Mm-hmm. donc nañ jàpp kooku yóbbu. Mm-hmm. police def enquête léegi yow am na ñuy wax ne nañu dindi siège yi. bàyyi foofu mu nekk ah, béton bi kese yow loolu la lan nga si la mooy sa xalaat. man loolu laa mus a wax. man. Mm. yow wax naa ko si suuf naa. waaw. ñi naan àdduna da ngay développé mooy booy développé dangay xam ki ngay développé mooy kan. Hmm. arène bi yàgg naa wax ne taxawaayu arène bi baaxul ni ñu ko tabaxee baaxul. Hmm. te lu man yow yàgg naa ko wax. parce que arène bi amul waxtaan. amul woon waxtaan amul waxtaan. Hmm. CNG rek la ak ministère des sports. te ñooñu yoruñu ëpp ñu xel nit booy liggéeyal nit. da ngay jël CNG bañ ko ko waxee dafa war a wootee séminaire. woo làmb yëpp ñu toog. ñu waxtaan ñu ne ah arène bi de nii la war a demee. Hmm. ñii di rek ne man yàgg naa leen wax ne arène bi lañ ko def comme stade Demba Diop. Hmm. mu am ay dër. Hmm. géew bi yaatu. ñu xam ne lii mooy arène bi. mais arène bi nga xam ne kenn xamul lan mooy arène lii lan mooy lii lii dara. yàq nañu alalu réew mi. yàqal nañ président Macky Sall. ña ko def normalement dañ leen war a yóbbu si yoon. waaw mooy yoon. dañoo war a réew mi waaw alors réew mi lañ yàq ni li ñu yàq ni dafa ñaaw. Hmm. ndax intérêt personnel da nga gis ne arène nationale lañ koy eh, yàq la. Ah, arène nationale yàq la ko defer nii baaxul yàq la. Hmm. arène bi ñu ko dara baaxul. mais ñu bëri ñoo ngi am di di ko am contentement ni ñu arène bu rafet la. mais arène bi rafet na macha allah. mais neexul pratiquer. Hmm. yow xam nga ne arène bi neexul pratiquer. wala arène dafa xat. géew yi xat. cumukaay yi xat. nañ wax dëgg bijou la mais bijou day fekk nga mun ko utiliser. tey mu ngi nii mënuñu ko utiliser chaque jour cumukaay yaa ngi jege. tuus bi baaxul nit ñee ngi xeex nit ñee ngi xuloo loolu ko fi jar. loo xam ne yow tey 32 milliards. 32 milliards ñu dem def ko lii. Mhm. loolu rafetul ñu nag chinois yi ñu benn. Mhm. tey ñi fi nekkoon dañoo waroon woote waxtaan. Mhm. ay nit boo ñu defaral dara da ngay waxtaan ak ñoom. ñu wax la ñoom ni ñu ko bëggee nga defal leen ko ni ñu ko bëggee mais ku xool arène bi vraiment ñaaw la lu ñaaw la yoo xam ne dëgg nit ñi tamit dañ fay jooy wàllu sécurité loolu d'accord nga si waaw amul sécurité sécurité bi des na hmm. police ñu ngi koy gërëm ñu ngi def lu ñu mën hmm. di gërëm gendarmerie ñu ngi def lu ñu mën hmm. mais dañ leen di ñaan ñu gën a yokk yokk sécurité bi mooy làmb dafa war a teel a commencé teel a tas lamb bu war a teel a commencé ban heure la war a commencé pour yow. heure 16h. ñu bunt yi 16h. Mhm. mbër yi bëri. yaa ngi ñu mhm. aj la. mais tamit ñu incriminé parrain yi dañuy tuddee ñeenti combat ñeenti parrain ku nekk bëgg wàcc si suuf dafa fëkk benn vingt mille quinze mille. non ko man li may gëm mooy. Uh-huh. loo gis organisation la. waaw man de boo ma tuddee làmb yi. Mhm. ma wàcc suuf ak ma taxaw si kaw laa yemale. utuma tur mhm. jéemu siw mhm. utuma ne man maay diw yaa ngi dégg mhm. ñu si bari nag ça dépend yow la indi waaye li am solo mooy làmb dañu war a xool heure yi man de duma toog làmb ba neuf heures si guddi xalaatuma ko ah, wala dix si guddi pour seetaan làmb duma ko def parce que dew moom ma ko làmb laa def jërëjëf li euh, moo nekkoon première partie bi mu wax si affaire drapeau bi ak arène nationale fu ñu ko érigé